jëwaay ak képp ku yeewoo ci banlieue bu Ndakaaru ganu Babacar ñëw na may fàttali rapidement ñaareelu pàcc bi daañu dalal docteur El Hadji Niang ancien chef du service euh, radiologie ca hôpital Dantec et puis Abdoulaye Cissé également sera avec nu dans le jàngat ou la chronique euh, du jour Babacar Fall nag euh, professeur Alain Ndoye lay dalal moom ñu waxtaanee Aristide Le Dantec à tout à l'heure bu waatee maladie ci yeneen hôpital ci réew mi ànduñ ci anam bi ñu koy defee am na ñoo xam ne li leen yitteel nag mooy eh, nguur gi ni mu xalaatee defaraate hôpital bi jaay xaaj bi ñetti hectare jël ci trente milliards ngir defaraat ko dañoo bëgg a xam yow en tant que professeur de médecine nekk itam ki jiite service urologie ak andrologie foofa ba noppi jiite commission médicale d'établissement bi euh, lan mooy sa taxawaay foo féetee ci ci coow li professeur Ndoye merci beaucoup merci beaucoup. li ma leen bëggoon wax mooy euh, euh, ñun euh, commission médicale d'établissement de Le Dantec lu ñu bëggoon mooy hôpital boo xam ne daf ñuy permettre ñuy liggéey dans de très bonnes conditions jël suñu ay malades dans de très bonnes conditions loolu la ñuy souhaité woon su mu la bëggoon su mu la mënoon fàttali lu mu demee il y a mot mot na léegi deux ans ñu ngi liggéey jéem a seet hôpital bi lu ñuy def ba génn ci coono yooyu Euh, dañuy def benn mémorandum ñu soumettre ko à l'époque euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr daf ñu si jàppale def si ay sub subvention mais dem nañu ba xam ne hôpital bi mënuñ ko defaraat dafa dafa màgget te hôpital bi dafa am ay problème si euh, infrastructure boo xam ne defaraat daal yàq xaalis lay doon lii moo tax dañu rafetlu décision président de la république Euh, li nga xam dafa décidé euh, tabaxat euh, hôpital La Dantec lu ñuy rafetlu aussi man ci li may jëlee coow bi am si hôpital La Dantec mooy li ma doon wax au début il y a deux ans te bu boobaa ñun kenn si nekkoon c'est que hôpital La Dantec coow bi war na ne ñëpp a ko moom ci Sénégal Sénégal yi bu nekk dafa am walla boo xam ne moo ko si hôpital La Dantec loolu moom. c'est aussi euh, extrêmement euh, important dafa am importance loolu. Mhm. mais est-ce que coow boobu tamit euh, c'est pas légitime comme noo ko waxee mais peut-être du muy wane rek que peut-être gaawantu bi walla na ñuy defaree ci wàllu service yi jël bi yóbbu hôpital A jël beneen yóbbu B disperser service yi maladie am ay difficultés pour ñu repérer wu est-ce que c'est pas ça la grosse équation. loolu mun a nekk li nga wax mën a nekk mais na nga xam ne ñiy liggéey ministère de la santé ay professionnels lañu lii nekk ñi nekk Dantec tamit ay professionnels lañu te fi ñu toog nii euh, maladie la ñuy def suñu préoccupation euh, je pense que nit ñi war nañu may euh, confiance tuuti ba xam ne ci semaine bi parce que semaine bi lay commencer effectivement. est-ce que dina am jafe-jafe te wax nañu ne euh, c'est la première fois euh, ñu koy def Sénégal opération bu mel nii euh, dina permettre suñu ministère de la santé am expérience gis nga suñu tontu Covid kenn xalaat woon ne dinañu résister ni def tontu bu mel nii tontu bi dañ ko rafetlu ci monde entier mais nañu may rek nañ def confiance nit ñi ñu ñëw oui c'est vrai euh, annoncé nañ ko tardivement c'est vrai def nañ ko tardivement mais plan bi am na ñi nga xam ne dañ siy liggéey suba ak ngoon te plan bi normalement euh, mun na nekk day indi ay jafe-jafe mais Euh, dans l'ensemble man daal am naa si confiance. mais professeur xam nga ni euh, avant ñuy wax dañuy tuxal service su la dante gi ci feneen hôpital bu ne am nga sa problème yu la doy euh, fajkat yi doyul service yi bu ak xëy fajal di rang nga bëgg cee dolli ñi daan dem dante dem ci yenn hôpital forcément problème day am. mun nañ ko gisee noonu wante nanga xam ne hôpital bu nekk. hôpital bu recevoir service Dantec daf ko recevoir ak personnel am ak matériel am. c'est ça le problème nag est-ce que du foofu mooy problème parce que déjà Babacar wax na ko tënculoo bi ak ci hôpitaux yi nga jël leneen yokku ci est-ce que du indi diisaay. mën naa la wax mën naa la wax ci sama expérience. parce que euh, li ngeen di wax nii dinañ ko xam dans les jours à venir donc man du ma devin du ma leneen. donc duma ma si wax mais dinaa la wax sama expérience. kon ça veut dire kenn maîtriser wul plan bi. plan bi dañ ko maîtriser dinañ di xam nga wax wax mun ngeen wax après euh, wax wax rek la man dama bëgg ngeen xool résultat yi li ñu ko waxee démb si télé yenn ay témoins yi. yéen a war a dem xool sur le terrain lu mu demee. mais mun naa la wax concrètement ça va par exemple. xaaral ma expliqué la xaaral ma la sama service service bi may jiite dañ ko prévoiroon feneen. bon il se trouve que dafa am jafe-jafe parce que euh, li ngeen di wax commission médicale d' établissement fi mu war a dem daf ko refuser parce que service bu mag la service bu rëy la léegi ñu indi ñu. fan la waroon dem ba ñoo sori fu ngeen ko bëggoon yóbbu. amul importance. Ah, léegi c' est important ah si euh, professeur c' est pas important. mais c' est pas c' est pas grave non plus de le service était prévu pour aller à l'hôpital de Diamniadio. Mm-hmm. Euh, léegi ñun. lan moo tax demul foofu. commission médical d'établissement bi moo ko moo ko refusé léegi euh, loolu prérogative la ci commission médicale d'établissement mënuñ si dara léegi dañu dem centre de santé de Ngor te je vous invite bilaay je vous invite ñëw leen xool euh, dañu dem ci centre de santé de Ngor euh, équipe bi ñu accueillir foofu daf ñu accueillir à bras ouverts c'est un centre de santé certes bien construit centre de santé la boo xam ne mu ngi fonctionner. mooy li ñuy wax dispensaire rek ci du dispensaire loolu mooy mooy problème bi nit ñi dañu mais na ngeen war a xam ne ay nit la ñuy faj ci biir centre de santé bi ay nit la ñuy opérer centre de santé bi am na salle d'opération am na réanimation am na salle de réveil je pense que seen liggéey journaliste war na leen yóbbu foofu ngeen filmer ngeen xool de vous de vous-même vous vous rendez compte est-ce que service d'urologie bii dem bu gën a mag ci Dakar bu gën a mag ci Sénégal buy nangu dem ci centre de santé est-ce que dispensaire lay def loolu mënul nekk il faut euh, xam nga li ñuy wax euh, quand la vérité prend l'escalier les rumeurs prennent l'ascenseur léegi concrètement boo boo par exemple yow nga nekk professeur. alors maa ngi lay expliquer. Mm-hmm. une question peut-être pour mm-hmm. qu'on mm-hmm. soit concret nga jógee hôpital de Dantec. Euh, yow ak sa service ngeen dem fenn. ça va être quoi dañ leen di beer ou bien ngeen di booloo ak yeneen ñi fa nekkoon dans la dans le même dans le même groupe dans le même service ça va être quoi concrètement. naka concrètement dañuy booloo ak. les mêmes bureaux Euh, affaire bureau amul problème yàlla na am salle de consultation loolu am na parce que suñu problème ñun suñu problème mooy maladie maladie nañ leen recevoir si ay conditions yu baax. organisation bi tamit am na solo. organisation bi toppatoo nañ ko bu yàgg. professeur affaire bi dina compliqué. non du compliqué xaaral ma expliqué la euh, ñu ngi dem ci centre de santé dama lay wax avantage boobu et loolu tamit mën na nekk test pour la le système de santé sénégalais parce que ñun dañuy dem Ngor. dañuy fekk foofu amoon traitement urologie bloc opératoire bi mu ngi dox mais pas de façon optimale et cetera ñu ñu dem ak suñu matériel théoriquement dañuy ajouter foofu deux salles d'opération ak ndax suñu matériel ñun dañuy liggéey mais dans dix-huit mois si on part dañ fay bàyyi service d'urologie dañu fay bàyyi médecin dañu fay bàyyi li ñu soxla ay ay interne ay DS ñi leen di liggéeyal. ak matériel bi ak matériel ça veut dire que euh, urologie. ce sera rapproché des populations loolu expérience la war nañ ko tenter c'est une bonne chose c'est une bonne chose avec un service d'urgence am na professeur yi ne au lie que ngeen euh, nekk fii di euh, defaraat hôpital bi vous auriez pu defaraat beneen l'hôpital boo xamante ni parce que le Dantec ku nekk xam na quand même euh, ñi amul doole ci ñu bëri ñoom foofu la ñuy dem est-ce que le mieux peut-être n'aurait pas ñu defar beneen hôpital bu mag ci zone yoo xamante ni. maanaam toxal hôpital bi toxal ko plus proche des populations peut-être même côté Diamniadio pourquoi pas. ça li ngay wax nii. du suñu décision décision politique la. wante am na yoo xam nga ne. suggéré yéenay faj. yoo xam nga ne non ñun lu ñu mën a nekk suñu prérogative mooy nañu am plateau technique fu ñuy faj en sécurité maladie nekk en sécurité dafa lu mel di laaj. yéen ñëpp a ngi nii di wax ne Dantec li Dantec li est-ce que xam ngeen ne euh, Dantec mënoon na fa am accident di jour au lendemain est que xam ngeen ne. euh, la sécurité de personnes et des biens n'était plus assurée est-ce que xam ne Dantec mënoon nañu fa am lakk mënoon nañu fa am effondrement de dalle te loolu mus nañ mus nañ ko gis mus nañ ko gis est-ce que su amoon accident boo xam ne kenn day gaañu wala keneen ki am problème xam ngeen li xew ci dëkk bi xam ngeen li xew Tivaouane ak feneen est-ce que bu boobaa nit ñi dinañu cest à ñun du question euh, Dantec mënatuñu woon toog ci biir Dantec. mais nit ñi neewuñu euh, d'accord ñu ak reconstruction problème bi mooy nuñ koy defee. par exemple montage financier bi ak toxal bi loolu mooy problème bi euh, dans dans la faisabilité paraparaf bi. bu dee montage financier yi ngeen ma fii il fallait pas m'inviter man médecin la. Oui, montage mais, oui, mais professeur da ngay politique et financier bi waaye gis nañ ni. Euh, hôpital bi juróom benn hectare la. am la ñuy xaaj jaay ñetti hectares yi. Mhm. te xam nañ ni hôpital bu mel ni Dantec wala Fann. nga mhm. xam ne ay centre hospitalier unitaire lañ. Mhm. dañuy soxla espace parce que boo xoolee Fann xoolal bu weesoo hôpital ba na mu sosoo ak yeneen service yi ñu fa tabax am na hôpitalu xale Albert waaye am na sax euh, euh, service euh, maladie infectieuse bu bees bu ñu fa tabax te professeur Seydi jiiti ko ak yeneen ak yeneen yu tabax parce que am nañ suuf am nañ pàkk bi am nañ yaatuwaay bi est-ce que Dantec soxlawul woon ñu gën koo yaatal bu fekkee taxuñ ko gën koo yaatal ñetti hectares yooyu est-ce que xajul woon ci hôpital bi tamit. bon affaire u hectare man musuma jël benn paax ci wax boobu. lu tax maa ngi considéré nii maa ngi considéré nii. suñ ma joxee hôpital niveau 4 ak plateau technique ak lépp li ma mun liggéey man euh, ça fait bi ma nekkee interne avant interne sax étudiant depuis 94 maa ngi liggéey Dantec traversé naa ay crise ay problème ay kenn xamul ci biir Dantec gis naa ay ay li nga xam ne mënuma ko wax fii bugguma maa ngi waaja a dem peut-être dans dans une dizaine d'années maa ngi waaj a dem à la retraite bugguma bàyyi sama rakk yi sama élèves yi ak hôpital bu mel nii ñuy jaar ci jafe-jafe yi fi ma jaar pour li léegi affaire u hectare bi wax dëgg du ma si wax parce que affaire u hectare bi du suma affaire. soxlawu leen euh, espace boo xamante ni mun na leen permettre. développer hôpital développer hôpital. ci li ma wax nii euh, ci fi ñu toll nii. Hmm. nañ ñu jox hôpital niveau 4 ba ñu def li ñu mën a def li wax nga ko. hôpital bi euh, ñi nga xam ne ñoo amul moyen ñooy ñëw bien que man bon. mu sori trop. Euh, non euh, ñi amul moyen ñoo fay nem mmh, dafa excentré complètement waaw mais hôpital bi su fekkee ne day jouer rôle am dafay rétablir benn affaire boo xam ni dafa am importance te nit ñi duñ ko wax mooy justice entre les Sénégalais ñu ñëpp am nañu droit à la santé. ñun ñëpp am nañu droit à la santé dans de bonnes conditions ce n'est pas ki nga xam ne dafay jël mal ki am moyen mu évacuer ko kooku mun a malade malade mun a rëccu tandis que ki nga xam ne amul moyen léegi ñun ñëpp ñun ñëpp on sera pris dans les trucs dans les même conditions loolu moom am na importance tellement d'importance ci man. mais mais professeur li ñu seetlu mooy yéen kilifay hôpital bi yéen fajkat yi jubawu leen ci ci mbirum euh, ci coow li jubawu leen ci. loolu tam euh, euh, mooy wane ni euh, te dafa mel ni ñi àndul ci ni fii doxee sax moo ëpp wala. lan lan lan mooy mooy ñu man comprendre li nga wax. xam nga jamais au Sénégal jamais benn question dina def l'unanimité boo waxee waxu médecin am na lu mot lu ëpp cent médecins ci biir dante man li ma gis ñi nga xam ne après effectivement damay dégg nii am na ñi nga xam ne d'accord ñu mhm. mais ñooñu motuñu cinq cest à di que bu fekkee ne dañu war a contenter ñëpp. duñu jëm kanam dañuy jël et puis dam lay wax benn affaire ñun mii professeurs yi fa nekk ñii nga xam parmi ñun nga xam ne dañuy fay liggéey ñu bare à la fin ñun peut-être que dañuy dugg ci biir hôpital bi dem retraite c'est les jeunes te lépp dem leen ngeen woo jeunes yi ngeen laaj leen ñu ñu bëgg. ñooñu ñooy yore hôpital ñooñu ñooy dem France di jàng ay technique boo xam ne mënuñ ko appliquer ndax hôpital bi plateau technique mais mais dañuy frustré parce que li ñu mën a def ci Sénégalais yi duñ si def 10 pour cent man si jeunes yi laa am yaakaar. Euh, kon léegi ci euh, wax nga ci wàllu délocalisation bi loolu mënul nekk est-ce que euh, montage financier bi il faut ñëwaat ci loolu <laughs> parce que bëggoo ñëw ci parce que ñu bëri loolu lañ leen di ngàññi montage bi xaalis bi ngeen euh, nar ci am alors que peut-être état bi mënoon na ko reconstruire. ñetti hectares yi 30 milliards kese lañ ko jaayee. nguuru Sénégal mu ngi ko réglé 30 milliards tabax hôpital xam nga ça vraiment. encore une fois da ma bëgg yóbbu fi nga xam ni du ma fa dugg. defu leen suggestion bi. non xaaral ma expliqué la en tant que kilifa xaaral ma expliqué la nous sommes jaayum suuf gi am na lu ci laxasu ah waaye nag comme du sa domaine. waaw suma ah, domaine xam nga man su soo ñëwee. Hmm, su fekkee ne nekkuma woon médecin yow nga ñëw nga feebar ma ne la médecin la kay ma faj la xam nga sa affaire du baax man médecin la damay yem ci li ma xam suñ ma waxee tey demal nga dawal avion mun naa wax oui mais su ma demee si avion bi mun naa ko li nga xam ne du suma liggéey duma ma si dugg loolu moom c'est clair. ñi nga xam yëpp sant yaa ngi wax professeur affaire xale yi nga xam ne ñoo dugg ci médecine di jàng ak ñoom seen euh, ci tuxal gi ñuy tuxal euh, service yi yu dante gi gis nañ ci ay xeetu liggéeykat yoo xam ni xam nga statut yi daa wute am ñoo xam ni euh, seen i ndàmpaay ak seen yi warutul ñu jot ceeg ñoom seen yéen en tant que chef yi nekk foofu ci hôpital bi nu ngeen ko gisee. bon à li nga wax ni. Euh, dafa am importance lool parce que travers Dantec et en particulier benn syndicat wax na lu bari ci man daf ma ne euh, dafa ne man damay dem di kii et cetera ay diffamation yu bari euh, ba léegi porté wu ma plainte parce que ci sama xalaat personnel bi mu ngi stressé te li ñuy wax. Euh, nekkul seen bëgg-bëgg dëgg ci affolement bi dañuy dégg li leen di wax ñi koy ñi koy def man ci li ma xam bi ma demee liggéey ak euh, bi ñu commencé liggéey ay réunion ak ministère de la santé nee nañu euh, salaire yëpp dinañ ko jël en charge maanaam ñi am contrat ak l'hôpital Le Dantec dans les trois mois aussi dans le reste aussi dinañ ko jël en seulement wax naa leen ko. bu nekkoon coow il faut que ñu commencer liggéey justement pour sauver suñu personnel dañu ne man dama ne damay auditer personnel non loolu nekkul sama pouvoir li ma waxoon très clairement peut-être moo audit la nga xam ne <laughs> sénégalais daf ko bañ mais dañu war xool loolu c'est l'attitude responsable pour sauver pour amener avec nous euh, le maximum de moom dañu war xool ku nekk ci compétence am profité si 18 mois yi pour pousser compétence yi le plus loin possible. en terme clair lan lan nga bëgg a wax. Euh, dama lay jox exemple. am na ñi nga xam ne euh, je sais pas ay ay électriciens lañu et ñooñu dañ leen di mun nañ leen jël inscrire leen pour ñu def diplôme ñu def formation mu ñu mun leen intégrer si nouveau schéma bi comprendre am na ñu bëri xam nga euh, Dantec problème bi dafa bëri personnel mais personnel bi. Euh, formé wuñu leen. Mmh, mmh, mmh. mais dafa am par exemple ay aides-soignantes et cetera ñun ñëpp ay professeurs ñu ñuy jàngale ñooñu mun nañ jël en charge seen formation. am na ñoo xamante ni dañoo nekk foofu te amuñu formation. amuñu formation waaw di liggéey pas besoin de de. non waxuma loolu. parce que on xam nga ñun on est une équipe. mul jëlee exemple euh, urologie bëgguma ñàkk kenn ci sama équipe fi ma nekk nii bëgguma ñàkk kenn sama équipe même bu dee brancard yi te su ma leen mun a yóbbu ñu liggéeyal ma nii laa ko buggee ñu liggéeyal ma euh, comme euh, ci hôpital bu bees bi ñu former leen ci hôpital bu bees parce que hôpital bu bees. oui mais ay ay liggéeykat quel que soit leur statut. Mm-hmm. war a toog 18 mois du ñu liggéey xëy na am nañu xëy na dootuñu jot seen salaire wala dootuñu seen ndàmpaay ça aussi c' est loolu tamit question. loolu la. c' une question extrêmement grave li moo tax ma ne la euh, teniruma leen rigueur parce que. dama xam ne man li suñ ma ko defoon damay dof heure bi n'est-ce pas mais euh, loolu du suma sago mais je pense que euh, honnêtement euh, liggéeyal li liggéeykatu Dantec dañu war a xoolaat je pense que ñoom ñëpp mën nañ leen sauver ñoom ñëpp mun nañ leen jël former leen su fekkee ne mënuñu dugg Dantec ñu affecté bu ñu leen di former dinañ fayeeku waale seen salaire rek waaw ah, ah loolu ah. loolu la ñu bëgg de man honnêtement nekkuma ki nga xam ne day fay salaire engagement boobu bu leen ko bëggee xam nga fa ngeen koy jëlee <laughs> mais man loolu mooy sama xalaat te loolu mooy mm, ministre de la santé waxul lu leer ci seen mbir nañ ko dégg sax ci xabaar yi ci kanam dernière question démb la hôpital ba waroon tëj officiellement est-ce que am na malade yu fa fanaan biig wala ñëpp dem nañ non am na am na ay malades yoo xam ne euh, am na ay services yoo xam ne tëjuñu leen démb wan ngeen ko si yéen seen seen journal. am ay services yoo xam ne mënuñ ko tëj parce que euh, et cetera il faut que fi ñuy war a dem mu pare après ñu tëj ko mais par exemple mën naa la wax ne urologie dafa tëj. Mhm. sa maladie kon nañ la fekki ngor léegi. ngor est-ce que matériel bi dem na. matériel bi dem na. kañ ngeen commencé tey. tey ce matin yéen a ma tardé sama. <laughs> jëf euh, professeur euh, Alain Khassim euh, Ndoye. merci chef service urologie andrologie hôpital Le Dantec yaa fa jiite itam commission médicale d'établissement jërëjëf Alimo jëf Soxna Fati ñu yendu ak jàmm. jërëjëf Babacar Fall yow ñu ngi lay ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yow di ñaanal également suñuy téléspectateurs yi àndoon ak ñun 6 h ba léegi c'est une très bonne idée et puis ñi ñu dabaat ci ñaareelu pàcc bi ñu leen wax dal leen jàmm euh, ñaareelu pàcc information Matin dañ koy dooree xibaar yi léegi léegi lay doon ak Serigne Cheikh.